ay projets yoo xam ne accord hmm. euh, euh, ay ay ay ay yu ñu activé. Hmm. ay partenaires yu ñu activé. Hmm. nekk gagnant gagnant xëy loolu mooy nekk lu loo xam ne mooy doxal xëy na di déglu rawatina groupe de presse ci loo xam ne pour suqale askan moo ko tax a jóg euh, ko xëy na pour ñu proposer. waaw ah, bien sûr waaye itam ñun. Hmm. Euh, beneen côté bi dinañ la koy nopp. ci la koy nopp gis nga ne man ma xasee boo wax ne lii mooy situation bi lii mooy état des lieux mm-hmm. xëy na li ma leen di jox bu nekkul sur mesure itam boo ko réajusté rek mm-hmm. damay daal di mën a def mm-hmm. parce que man j'ai quelque chose qui est prêt dëgg yàlla j'ai quelque chose qui est prêt à l'instant ndax wax dëgg yàlla mën naa ko wax ne ci sàll mu ne bul fekkati ku mag naan ko xaaral maa léegi asante ku mag bu ñu naan léegi da ne ko maa léegi asante kenn hmm. fekk juróom-ñaari weer lay pare du dee man ku dee kenn du ko ne maa léegi ku ku mag kenn du ko ne maa léegi asante da koy ko foofu ci waaw parce que sii di pour être franc et ça vraiment je fais

dañ ko bàyyi mu utal ko bopp xam nga un diamantaire ci turu la diamant c'est pas évident diamant mën na nekk fii mën na nekk fii mën na fépp ngay gas mën nga gas fépp itam fekk romb ko loolu c'était loo xam nañ ko ko léegi romb ko itam ci doigt montrer que tu es de la même essence donc vraiment réussir pour un an c'est man personnellement mënuma ko damay wax mu dëgg dëgg yàlla mën naa am sax xaalis bi muy doxalin yi mënuma ko te doxalin mooy li gën a importance waaw ndax tey boo joxee ndugg téeméeri jigéen même ndugg mi na am koo xam ne da ngay mos ni yow merci merci suur na keneen nga ne man kat suur naa ñu la mosal moom nga mos rek continuer ba bool ba jeex loolu ca ndugg ma ca toggin waaw moo tax dama bëgg rek bu ngeen ma joxee trois données yi rek man ma génne li ma yore jox leen ko ñu xool nag yéen nag yéen ay doxal man mu buuma nekk quoi que ce soit man fi mu ne dama toll ci distribuer nekkatuma ci accumuler ba may toll ci accumuler damay accumuler accumuler ba chef